Et nous jéem a kon appel à toutes les coalitions du Sénégal à tous les candidats du Sénégal Nous ñoo am dëgg depuis le député Yewwi Askan Wi un recours conseil constitutionnel faut suspendre la loi anticonstitutionnelle de l'élection. élection yi kon bu les policiers la preuve moi, professeur Mary Teuw Bara Diouf Mamay Diokou ak ñom s'en, ak Assane Diop mi nga xamne dalal ak Rama ñu le autorisation bu ngeen amulee autorisation du ngeen mu jëntel bi jëntel bi andon ngeen ak ñun gis ñu ñuy wax ak askan ak askan élection par force askan waxu du dialogue askan wi waxul amnistie askan wi dafa élection par force nañu déglu askan askan que li nous avons a une élection dégage askan wi nous Macky Sall élection 2 avril Est-ce li Sonko et tous les otages politiques askan moi élection par force te nanguwuñu élection le 15 décembre 15 septembre 15 octobre 15 juillet 15 août 15 mai élection 25 février lañ ko kon ñu fi indi force. laaj nak suñu chauffeur suñu chauffeur bi ko muy daam a ah, libéré nañ ko ñu ngi may xamal ne libéré nañ ko suñu chauffeur daam léegi nag nañu libéré suñu oto c'est bon aussi suñu oto c'est bon aussi ñu ne nañ suñu oto léegi nag nañu ànd libéré Sénégal voilà libéré Sonko Sénégal La de coalition la coalition